jëlee caga pour ñu daaneel góor ñu baax ak di docteur góor ñu di jaay jomma doo tus yow doo tus fekkee sa jëm la may xaalis dina dina jox dépense daas paaxaam di di wut ko ku la rendi ñun yow nag ñu mën a jommal ñun waaye yow askan bi waxuñoo ak yow ah waa askan bee koy xal yow toroxal ci réseaux sociaux yi yow dinañ la toroxal sa réseaux sociaux yi yow Malick Gakou bu la kenn jox député lañ la wax Malick Gakou foo génn dinañ la yuuxoo ah bu la kenn jox député te dugal leen ko ci Facebook beeg yëpp Malick Gakou jaam la koy défendre Abira bi caga saam yëngal aras yëngal àddina rey suñu fukki xale ñeent Malick Gakou bu ne da koy dem joxe da koy dem joxe député Malick Gakou tu te prendre pour kii yow yow Malick Gakou yow yaay kat yow dërëm bu dul woon askan bi nga am dara yow yow nga jaay sa mairie géej yow da nga mën a jommal Malick sa démb fii la ñu fekk ah yow Malick Gakou yow setoo fenn sa xaalis setul te yow setoo yow yow askan bi dañ la yaatal de mais ñun askan bi xam nañ bu baax te fu ñu ah arrête Malick Gakou arrête lañ la wax